ba bunt bi buntub dénk la xaw a forcé mais sëñ bi tëjul bunt ba da koo dellu waaye fekk na nag néeg booba Cheikh Ibra Fall la ko takkaloon sëñ Tuubaa moom la fa yónnee woon mu takkal ko ko néeg ba dara nekku fa woon genn basangu romb jaan fa ne woon sëñ bi bu dikkee da koy lal toog ci def la muy def bu paraatee da koy sëp ndax nee na suñu borom ma ne koon boo demee ba yëg ab coono ci sa bopp demal ci liggéey bu Ibra Fall liggéey nga noppuloo fi bunt bañ sëñ bi moo ab Ablaye Xaar ni ko demal ci Ibra Fall ni ko ni ñëw sàkkal ma fii bunt te bu sàkkee bunt ba pare na ko tëj bu fa kenn jaar na ma indi doom bi naka te bunt boobu ci la sëñ Tuubaa di jaar buy tax ba suñu sooy ñëwee sëñ Mat Lamin Jóob la ñu ko doxal sëñ Mat Lamin Jóob sëñ Tuubaa daf ko wax ni ko may naa la fu ma ne man faa fekk nga xool sëñ Muusaa ak taalibe gi li ko sëñ Tuubaa di jur jur bi mu dikkee sëñ Mat la ni ko nuyoo kenn fayu ko mu yëkkati xasida kenn fayu ko mu fittasu kenn fayu ko mu xam ni am na loo xam ne dooma ko sañ ci bàyyam mu dellu gannaaw ni sëñ Moussa bismillah sëñ du nuyoo kenn fayu ko mu yëkkati xasida kenn fayu ko mu puus bunt bi mu yem ci dànk tëñ lamp fatafoor bi ñu doon bi doon yor di ci niit ci lañ seen jëmm mu tëdd tëddaayam bu njëkk xam ne suñu borom ñëw naa ko dogalam mu dugal loxoom jël teg loxoom ci tànk yi tudd yàlla waaye sëñ bi yëngutul mu xam ne suñu borom dikk naa ko dogalam ba mu duggee ci biir tiim ko dane akatis gor ak a mën a muñ ndax sëñ Tuubaa li dal ci kawam ci diirub lim fii nekk te kenn déggut benn yoon bu mu salité wala bu mu waxee loo xamante ni luy niru ak dellu gannaaw la ci lim doon wax moo tax mu ne akatis gor ak a mën a muñ foofa nag la daal di koy bàyyi dem ci commandant bi ndax sëñ digg juridiquement kenn amul droit déplacé ko te amoo avalu tubaab bi résidence surveillée la ne loolu dañ ko war di leeral pour gone yi man koo xam da bokkul ak jamono jii nga xam sa baay day wàccub liggéey nga dem ci garage bi wutub oto dem ca jàkka ca àbbu kees ñëw teg ko ci yóbbu ko Touba demee wut noonu juridiquement kenn amul droit déplacé ko ndegam bi muy dund lañ ko ñëmi wut a déplacé askan bi muy dund léeg-léeg nga dégg koo xam ne naan sëñ Moussa da ko yóbbu bëndu la door dem ak dem waxi ko tubaab bi man leen loolu du jom du aw fit te sëñ Moussa ñàkkut ci yooyu benn sëñ Balla Coro la àndal dem ci kër commanda bi commanda kar wax ko ni ko sëriñ bi daal génn àdduna fekk na commanda bi wàcc ba dem këram këram la ko fekk ànd ak moom commanda bi ci buntu soow ba la jaare sëñ Moussa wëri jaare ci buntu penku ndax bañ information bi fajjat mu géré ko tubaab bi amoon nañ droit saa yu leen neexee nañu dugg si ci biir kër gi kenn du leen laaj lu ngeen di dox kenn du leen laaj lu ñu wut waxtu wu ci ne lañ koy dikkal moo tax commandant bi ci buntu soow ba buntu ba ñuy wax buntu sañ paatee fa la jaare dugg si ci biir sëñ Moussa wëri jaare ci buntu penk ba keroog tase na fa ak sëñ Amsatu Jaxate ci penku ba mu indi fa sëñ Saaliwu ak sëñ Sooy bu bëggoon ñu siyaar si sëñ bi te mujj ñu ko gis guddi ko sëñ Sooy bu dafaa fanaanee jooy waaye xamuñu lu muy jooy gisuñu sëñ sëñ saa dugg si ci biir wan ko ni ko ma nga ne génn àdduna waaye dama koy yóbbu ci këram gi ci Touba tubaab bi ni ko loolu mën naa ne waaye faaw ma yëgal ko sama kilifa sëñ Moussa ni ko loolu dàquwul tubaab bi proposition ni ko est-ce que duñ xaar ba suba sëñ Moussa ni ko mënta xaar ba suba bu xaare ba suba kenn du ko lijjanti commandant bi d'accord ak moom ni ko léegi ma nañ ko yóbbu en temps su fekkee nar naa indiwaat yeneen complication ñu indi ko ñu waajal ko safoor bi ko doon indi xamul lu mu dañ ne ko sëñ bi daa am bagage yu muy yóbbu tuubaa nee na ndax danga ko mën a yóbbu te sa lampi oto du tàkk ñu ko yóbbu Touba sëñ Basiiru la doomam fanweeri at ak ñaar la am kepp moo ci ànd ci doom jum jur sëñ Mat Lamin Jóob Dagana Cheikh Xari Jeng suñ maxtaar silla muhammadan tandax yi juróomi nit ñoo ko yóbbu Tuuba ak duut si si mi doon dawal oto bi foofee lañ ko jële yóbbu ko Tuuba ci waxtu yu néew sëñ bi am ak bëggam te ba muy sañ ci Tuuba la waxoon waccaal ilaahi maskan yi Tuuba abad nang ma defal Tuuba sama dëkkuwaay bi muy sama dëkkuwaay ba faw te am fanweeri at ak ñett yu mu fa jaarut woowu bayit mag mu xamuñu lu muy firi ndax sëñ bi am na fanweeri at ak ñett yu mu demul Touba bëgg googee mu doon defal nga xam ne moom la sëñ saa def loola ku dul woon moom mënoo ko bu jaxasoo woon du sotti bu andul woon ak sagoom du sotti bu amul woon du sotti ndax sëñ Touba ni mu toll ki dema toll noonu bi nga xamante ni ni tubaab bi dellu na këram daa dem fukki soldaar ak ñaar ñu ñëw cercle kër waaye fekk sëñ bi moom waajal nañ ko ba mu dem bi ñu demee sëñ Moussa daay yónnee ci borom daaru sëñ Abdoulaye Diop lew na la jox oto ni ko demal daarul mooti nga wax Baye Thierno ni ko kawoon Touba kawoon njaareem nee na ngeen daje Touba sëñ laay Diop bi muy dem dafa fekk borom daaru fatu ba tëj keesam mu gis bëkk néeg bi wax ko mu ni ko sëñ bi fàttu na mu ni ko mënuma koo ñàkk gis mu ni ko fàttu na sëñ Ablaye Diop door koo wax li xew nee na bëkk néeg bi bëgg a yuuxu sëñ Ablaye Diop nee na ma tatafu putam gi xoj ko jël sama baaraam bi teg ko ci noox noox bi ba muy xoq xoqi mu wóor ko ni dama koy rey ma ni ko gis nga lii ma la wax njaareem laa jógee ba agsi fii kenn yëgu ko boo fexee ba mu siiw da nga tooñ yàlla tooñ yonent bi tooñ tooñ sëriñ bi tooñ sa bopp te dara du la ci mooy nag ne mu ne ma bàyyi ma du ma wax du ma def dara ne ma bàyyi ko mu yéeg sàkkitu cëppeelu ci biir maam Thierno ngi ci mbaar mi dugg ci biir néeg bi ci mbaar mi lu wéru ne ma wax ko ne bi ma ko waxee maam Thierno nee na tekk diggante boo xam ne mënees na fee togg ab laax ba mu kenn waxut ak sa morom ñoom ñaar nee na maam Thierno ni ko kon de njaari mat naa jaaree nee sëñ Abdoulaye Diop ko Touba de la ma wax mu ne ko nañ def li mu wax waaye batale daa foor sëñ bi damaa batale woon ni ma bu ma des njaareem ñu ñëw foofu ñu door a yónnee nag ci kilifa yi yónnee ci sañ Mbàkke Buso yónnee ci sëñ Dame Abdourahmane Lo yónnee ci sëñ Mandumbe yónnee ci sëñ Mat Lamin Gey Firdawsi yónnee ci sëñ Baara Fatim mag ñooñu ñoo fa daje def ko foofee mu nekk la lay xamal ne liggéeyu sëñ Tuubaa réussir na mooy bi ñu jubloo ci mbiram ba fajar di jot nga xamee ni dugg na ci biir pax ma la ci des mooy tot suuf ak maasale ñu noddu fajar jot sëñ Mbàkke bu sa ni leen eh moom kat waxoon na ni lépp luñ koy defal ba waxtu julli jot nañ ko bàyyi ñu nodd julli suba def seeni baaxiyaat saaliyaat door a del si àggale lañ doon def kooku mu leen doon jàngale mokk na yàlla rongu la leen wanoon wonu leen boppam te pourtant bu njaxasoo woon it adduna dana leen ko muñal ndax ka ñàkk mosuñoo am lu tol noonu loolu réussitub sëñ Moussa la keneen mënu ko gannaawam sëñ Moussa def na ko jeena loola képp bu ca yemoon am payug sëñ Tuubaa loola rek doyoon na ab liggéey muy lii sëñ Tuubaa bëggoon mu jafe lool muy dëkk Tuubaa te dootu fa jóg mu fexe ba loola am muy indi ko fee nga xamante ni ku ko soxla ci ñun bëgg ko siyaare fa ngay waaxu tiim ko loolu bu doon ak sëñ Moussa du am kon dañu jàpp ni fu mu murit mën a nekk am seddu xol ci sëñ Tuubaa ba jàpp ni aajoom faju na war naa delloo njukkal sëñ Moussa